pour protéger ses arrières parce que am na accusation yu bëri ku ci mel ne Farba Ngom ñu ngi koy accusé dafa recruter ay nervi la police ak les bavures gendarmerie donc am jàpp ne ñooñu ñoo tax réellement que président bëgg dugal bii les projets de loi yow juriste yow politique ban gis-gis nga ci am. loolu sax dafa vraiment jàmm sax lu ma metti xam nga ma ma ci metti Sénégal man yàlla may na ma comme ni ma wax ne woon naa parlement panafricain. bien dem naa ci ay kuréel yu bari Nations Unies à Genève mais Sénégal mais dayoom ak ni ñu ko ji ak nu ñu ko mandargalee jox ko banaam place boo xam ne benn dëkk amu mhm. boo xoolee Nations Unies fépp fu am ay xeex ay histoire ba ci Haïti fu nekk Sénégal dafay teew. non Sénégal fu ma teew mais dafay jiite place de choix waay. ba neppi suñu maa koy nuyu général Moussa Fall ak ñi ko jiitu woon euh, directeur Bokar Yàgg commissaire mais ñooñu sax dañuy di woo ñoom Nations Unies ñuy tàngat maanaam. nan nga mën a nan nga mën a encadrer ay marche ak manifestation ku toog Sénégal gis ay policiers ñu ne ay nervis yu demee noonu mais ñoom su ma waxee ne droit pénal bi ñu yor ñun mais am na yoon yu bari yoo te alkaati yi tey mooy jëfandikoo seen fital jëmale ko ci ñoo xam ni tey ji yoon mayoon na leen loolu. li ñaan l'état quand même d'extrémicité et également la proportionnalité te lépp defuñu ko. alkaati mais pourtant y y a eu des morts. est-ce xam nga xam responsabilité yi xam nga moor yooyu moor yooyu. Euh, xëy na da nga dégg ñu naan bal lañ ko reyee. Mhm. mais expertise ak euh, autopsie dafa naa ñi nga xam ñi ngi yëngatu ci droit docteur yi maanaam bu ñu ñëf di xool maanaam mu dem dañaan rek bal réel la ñuy wax mais am na autopsie yoo xam ne dina mën a wane nga a xool ndax kii bi ko dóor bal ko jege ndax la ko jëlee ba nga la gendarmerie wala bal bu ñu arrêté wu mais man mën naa la mën naa la wax ni que mhm. police ci boppam yaa ngi dégg suñu naan ay nervi mais police sénégalaise même France da gis manifestation bi ñoo xam ne solo ñu yore alkaati mais ñu di ay policiers cas yi nga xam ne ñu ngi doon attaqué mais ay civil la ñu nekk. Mhm. ñoo xam ne la sol sax mais ni ñu wax ci affaire nervi mais alkaati Sénégal yaakaar nga ni yow dañu mën a nangu seen koor ay nervi ñëw yore ay fetal di tirer. mais am